que bu baax du ñu mën a fay impôt bu doy te boo leen tegee loo xam ne mënuñu ko fay dañuy tëj seen seen seen entreprise dem créer beneen feneen donc de ce point de vue là eh, ay concours état ci boppam mu recruter ay nit léegi léegi léegi léegi parce que désordre bi dafa bari ci réew mi foo dem nit yi du ngi gaaree fu fu leen neexee ñu ngi tuur ndox yi fu leen neexee ñu ngi toog fu leen neexee mais loolu c'est parce que état nekku fi donc aujourd'hui état bu jëlee ay agent yu doy pour ñu nekk ci quartier yi mën nañu amener de l'ordre ci prix yi maanaam njëgu yi nga xam ne nit yi dañu jaay lu leen neex ci boutique yi mun nañu mun na changer parce que nañu mën a contrôler désordre bi nekk ci réew mi loolu lu tax munul deñ fii parce que état amul fonctionnaire yu doy donc nañu fexe ba ñu am ay fonctionnaire yu doy loolu état mun na ko def te loolu c'est quelque chose boo xam ne soxlawoo euh, jël fii ay ay ay bor pour mun a dépenser yooyu mais ñun euh, beneen aspect boo xam ne mën nga am xaalis mooy état am na 3 millions 800 mille hectares ci terre agricole kenn moomu ko ñun rek ñoo nekk ci àdduna ah, peut-être am na ñeneen. Hmm. mais ñun rek Sénégal ñoo nekk ci àdduna ñu am 3 millions cent mille hectares te kenn moomu ko day neex eh, waa nguur gi heure bu leen neexal ñu dagal seen bopp wala nasaraan yi bu ñu ñëwee ñu dagal leen mais yow eh, soxna faatu hmm. am nga ay suuf say suuf maam amoo ci benn droit tu na pas de titre foncier bu ñëpp doon am léegi titre foncier mais booy dem banque nga mën a garantir dara. lu tax état du def loolu président Ousmane Sonko le premier ministre en avait parlé waxoon na ko mais teg na ko suuf parce que nag boo buggee def dara ngay xalaat ne su ma ko defee dinañ ma critiquer wala dinaa ci def dinaa ci échouer loolu boo xel di njiit bu nekk boo amee loolu sa bopp rek mm. mënoo def dara. il faut du que da ngaa bëgg toujours ñu tàccu la da ngaa bëgg toujours ñu ne kii moo aay léeg-léeg il faut nga daanu nga xalangu suuf. mais loolu des décisions impopulaires. oui mm. c'est quelque part important mais loolu defuñu ko donc il manque de courage. Mm. parce que dara bu xawee rek au ñu assumer ne ñun la lii la ñu deful lool lii moo ñu bett et cetera dañu nekk toujours di wax ne Macky Sall la wala waa waa waa Macky la wala sax ñu ne policiers yi la wala ñu ne sénégalais yi la mais yow ñu teg la fii di la jox ay moyens yu dul jeex nga war a assumer ses responsabilités saa yoo ñëwee nga ne noo du man diw la ça c'est pas quelque chose donc ça demande du courage dafa laaj fit hmm. dafa laaj fit dafa laaj imagination te imagination ak fit nag boo ko bëgg a am. fit moom je am na ñoo xam ne am nañu ko ci ñoom mm. mais imagination nag il faut nga dem uti ok alors est-ce que tey da nga am inquiétude aussi ci engagement yi ñu jëloon ak société civile bi parce que am na ci ñuy alerter euh, wax ne euh, président ba mu faloog léegi bind nañ ko waaye tontuwu leen muy nekk le la la la charte ou le pacte de bon gouvernance euh, démocratique mu mel ni euh, scénario wu président Macky Sall ak les assisards bi mu ñëwee jël ay engagement falu woon ginnaaw lépp li nga xam ne waxoon na ko. fii fi fii mooy gën a fii mooy raw Macky Sall. ndax la. non parce que dégg nga mais man euh, soxna Fatou man je sais pas nit yi du ñu du ñu am euh, du ñu xool bu baax affaire u euh, Cheikh Omar Diagne dans n'importe quel pays démocratique waa ji dana tëb mais président de la République nee ne moom kenn du ko mun a chanteloo parce que moom mënul woy n'est pas mais c'est pas du chantage mais sénégalais yi ñooy jël seen ak presse bi la ko waaye sénégalais yi ñooy jël seen xaalis di la fay yow président de la République sa ndékki sax ñoom ñoo ko fay sa ndox ñoom ñoo koy fay mais bu ñu d'accordul ci benn affaire ginnaaw ci seen tour nga koy ngay exercer say say responsabilités bu ñu d'accordul nga dellu ginnaaw donc ça veut dire que ñoom ils feront dañuy def lu leen neex société civile woo bu ñu leen mën a utiliser pour def li ñu bëgg a def ñoom mais loolu la Macky Sall doon def sax benn fan mus naa bind benn article di dal euh, Macky Sall parce que dafa doon wax ne oui euh, c'est selon mes désirs et mes mes volontés non président la République amul désir amul volonté désir am mooy désir askan bi volonté mooy volonté askan bi am na ay moyen nag ay jumtukaay yoo xam ne dina ko permettre xam lan mooy la volonté populaire parce que am na ay service de renseignement mun nañ def ay sondage mun nañu xam dëkk bi lu riir lan moo nekk ci ci ci ci seen waxtaan yi lan la à partir de ce mu xam ne moom ci boppam li ko neex ak li ko neexul ça n'intéresse personne. Mm-hmm. li neex président Diomaye Faye ne ne intéressé wul kenn. xam nga li li ñu intéressé ñun. mooy li ñeex escan bi su ko deful nag. ba c'est ce qui va se passer avec Macky Sall c'est-à-dire dina impopulaire a un tel point que nañu dem ba yërëm ko parce que loolu mooy c'est la loi logique de la démocratie su soo deful li askan du bu lu mu yàgg-yàgg nga tombé ci situation boo xam ne askan bi dina la dina la xeex te su booba ce serait vraiment dommage parce que lii yëpp li ñu def sacrifice yi ñu yëpp yëpp mm-hmm. ay nit di ci dee ñu ñëw di def vraiment exactement du Macky sans Macky naka ngay expliquer bon retournement de situation laa ko laa ko mm. mën a tuddee parce que ñoom ba bi ñuy doog a falu euh, li ñu doon wax méngoo na woon ak euh, li ñu doon wax ci opposition